jërëjëf mbokk yi comme niñ leen ko waxee ñu ngi ba tey ci Gàmbi euh, ñëw ngir làmb yi nga xamante ne jot na am ci Gàmbi ndax boo xoolee activité Sénégal lu baree bare fii mu toll ni ci wàllub làmb ñu ngi hésité ba xam dañ koy def huis clos wala déet waaye làmb Gàmbi moom commencé na gis nañ fi léegi benn combat boo xamante ni dox na fi ci ñaari doomu réewu Sénégal mu dox ci diggante Pape Thiam ak Petit Baye Fall mu doon combat boo xamante ni vraiment Pape Thiam daan na ko léegi jël li nga xamante ni mooy final bi euh, léegi léegi rek mbokk yi dina leen dëgtal champion yi nga xamante ni fas yéene nañ fee bëre gis nañ ci ay mbër yoo xamante ni ñu ngi jóge ba Sénégal ñëw fii léegi rek ki ma doon nuyu. mu ngi nekk boo yëmbal boo yëmbal xam ngeen ko mu nga mujjee bëre stade Jom Iba Mar diggante ma xeeru ngom ngor numéro de euh, petit production moo ko tëggoon. Euh, gis nañ fi yeneen xale yoo xamante ni ba tey ñu ngi ci dëkk bi mais gannaaw loolu yëpp mbokk yi dañuy dugg rek xool activité làmb yi xool xale yi nan la dugg see ambiance bi ak culture beeg yëpp kaay sëñ basiru kaay. anamu ndeysaan kii la Mbër. <laughs> laay laay la la waaw doomu yaay siyaar naa la. sant Serigne Touba. maa am jàmm bu baax. décembre ah. décembre bële waaw mois de décembre bële maa fi. yaa ngi entraîné di. maa maa entraîné maa ngi si tournoi en même temps. Euh, tournoi foo toll. non bii nii lii naa quart de finale. non waaw quart de finale quoi. waaw quart de finale laa ñàkk waaw. ah mais loolu baax. waaw non waaw ñu ñoo ngi fii ñoo ngi fii di bëre. ñoo ngi si ñoo ngi si ñoo ngi ñoo ngi jël ñoo ngi sant suñu bopp daal waaw suñu bëree tey dañuy jël suba yàlla mu doon ñàkk ah ñoo ngi sant bu baax di wàcc suñu combat rek. yaa ngi teq jël. waa teq jël champion bu mag yi di ko nuyu au passage. Ah. jërëjëf tey waaw mais namu naa nag namu naa Sénégal tamit waaw namu naa waa Sénégal bu baax baax. <laughs> réparé numéro 2 la rakk Marley la. Ndeysaan sëñ Baskaay. jiili déedéet jiili. ah déedéet kaay doo génne émetteur ma monté ko. non lumière bi na ma génneel. wér a wér nooy def comme que ñun suñu dëkk mënuñoo bëre ñu ñëw fii di combattre ñun ay xale lan làmb la ñuy def moo tax ñu jugee dëkk ak dëkk di ñëw fii di daan suñu doole am luñ dimbali waajur yi moo waral teewaay fii Gambie ah. tournoi laa bëre. final bi maa ko waaw. sama diggante ah, boobu nu mu tudd sax mais jàpp mu ma faal. waa Fall. waaw petit Baye ma Laye Fall. ñaata combat nga bëre ba jël final. cinq combat laa bëre démb maa ngi woon tey cinq maa woon Amalaay ma dem ba quart de final am xeex. ma ñëw fii suñu borom matale ko bërki ma maa jël un di ñaan yàlla daal mu gën a yokk. saison bi ñu tijjee léegi naa ñett tournoi fii si Gambie ndax suñu dëkk dafa tëj mënuñoo bëre ndax corona bi di ñaan yàlla mu jóge fi ñu ñi nekk ak seen activité maa ngi nii damaa lekk avance jàmbur mais munu maa toog ndax xale laa daa am lu ma war moo tax fépp mu dégg làmb rek damay dagg sama yite ñëw teew. yaakaaroo fii ak deux ans làmbu Gambie gën a dox làmbu Sénégal. lii lii lii ma gis nii bu daxul dina am xaw ma nag mu dàq mais lii ma gis nii si làmb Gambie bu daxul dina raw làmb Sénégal ndax ñoom bëgg nañ làmb dañ koy dundal. te yow boo doonee mbër boo fi ñëwee sa da ngay xam ne waa Gambie bëgg nañ làmb ndax man li ma téewee xam naa si dara quoi ñu aw ma seen fay barke am waaw dama koy dund géejewaay bi laay dund fii de sanc ba géejewaay bi kese laa koy dund boo gisee mafia bi moo toog nga xam ne alwaay bi rek moo koy fay noonu seen fay barke ba booy ku ñu wax baax na man moom du ma daan man ku ñu wax ku ñëw baax na. déggoo na la pare naa bu ko bëggee léegi léegi sax moo ko teree neex yow xam nga ma yow mais yow xam nga ma ñu may daan xooluñu sax saay saay ku dul moom sax buñ jaawante si biir loxo dar gémmañ yow xam nga si dara yow ndax ñoo bokk fu jóge xam nga lan moo tax tay ma ñëw fii bëgg damaa yaakaar woo ñoom ñëpp dañuy bindu si tournoi bi mu ñëw ku si nekk toog ma ne xaaral ma wane sama bopp xam naa ma wane sama bopp si dëkk bi gars yi dinañ ma ñemee ñëw bu rek man waaw loolu ku ko def njëriñam la damay bañ ay mbokam tere ko ko ndax xam nañ ma damay bañ ay mbokam tere ko ko ndax xam nañ ma day xar man kenn du ma xar Lamine da nga ma fàtte maay Pape Thiam doomu Géeya waa bi doomu sanc ba bi ragaluma loolu barke Serigne Bamba waaw waaw ñoo tax mooy reyante ñii ñoo tax mooy reyante. am na lu lay xaar waaw loolu du Thiès ma ne loolu du Thiès loolu naa ko côté bu yàgg bu doon suba suba suba pare naa déggoo ma naan ñaan yàlla feebar bi jóge fi ba ñun mbëri nekkaat suñuy activité bu baax a baax. mu dégg naa ko muy wax rek mais heure wax jotagul heure jëf bu jote ñu xam lépp dëgg la. bu ma jëfee rek ñu xam ne Pape Thiam jëf na ñu ne gaynde mer la fanaanoo man damaa fanaanoo mer te incha allahu rabi bu ma ñëwee Sénégal ba ñu jàkkaarloo man ak moom dina xam ni ku koy mun ak ku koy jéem bokkuñu man liggéey bi dama liggéey bi dama koo mën dama koo tar ba toll fi nii man faalewu ma géant man kuy géant boo taxawee sama kanam du feeñ ëppale wu ma dara maa ko daaku bëre maa ko ëpp sañ-sañ barki Serigne Mbamba duñ ko nekk xale ba muy bëree man bëreegu ma bu fàtte fin 2015 laa dugg si làmb am 10 combats benn défaite laa si am si làmb laa ko fekk te bu jour ba dina xam ne lépp dëgg la. incha allah loolu mooy am luy nekk sama ginnaaw mënatuma juum si dara damay ñëw def yëfu xale dem sama yoon ni ma xamee. déggoo lu ma la dama déggoo lu ma la damay daan ñoo bokk même jour damay daan jaar si yàlla yi mu daan. damay daan jaar si yàlla yi mu daan incha allah kooku sama mag la non ku muy daan njool moomu ñuy wax na ko réel wax jooju dañ koy daan ni dañ koy daan loolu nekkul lu ñuy waxaat ñun amul ñu ñuy ragal dañ ne Pape Thiam marre dañoo jël ay danse bu jour ba dañ taxawee dañ xam ne ñun jëruñu ay danse waaw la dëgër yaa na ko yàlla suñu borom defal ndam ñun ay doomu géejawaay la ñun ragaluñu loolu ñun képp kuy téye këréeli géejawaay boo amee combat yal na la suñu borom defal ndam délégué dañ koy ñaanal ma mayal ko ndam. ñuy waaj a déclencher terre au terre ak toni Junior. xuy loolu da xanaa ko moom. toni Junior ak terre au terre. Ndaysaan ak Tony Junior mbokk yi ñii na xam naa ay mbëru Gàmbi lañ terre au terre ak Tony Junior waaye terre au mi. am na taay bi ndax njool la Tony Junior gis nga ndeysaan gis nga teeroo teer a ngi noonu ndeysaan gis nga digganta njool la ak ndaama teeroo teer ak Tony Junior ma ngay diwoo suuf lii de bu dee Sénégal la ñu arrêté la ne la kaay waaw baax na. arbitre bi na. toni Junior ak Terro Terre. mbokk yi bu leen jaawalee. are avancé na Terro Terre Tony Junior. Ndeysaan Terre jëli na ko. Terro Terre moo leen woon ginnaaw Tony Junior ngeen di jàkkaarloo. jàppante ne ñoom ñaar. sànni na ko mu bañ. làmb <laughs> ay waay làmb jóge na Sénégal dem Gambie. ay waay reporteru Sénégal dem nañ Gambie jàpp na Terror Terre ak Tony Junior Terror Terre da ko ndengeñ daa ndengeñ Tony Terror Terre da ko ndengeñ sama xel dem na ci combat Zos ba muy bëre guy gi nii la ko ndengeñoon ndengeñ bu yàgg ba ndeysaan làmba ngi noonu Terror Terre ak Tony Junior mbokk yi ñu ngi fii ci Gambia dëkk bu neex waay Gambie Ndeysaan dëkk la boo xamante ni fi mu toll nii ñu ngi bàyyi wàll bu am solo ci wàllu làmb Ndeysaan gis nga bi ñu fi ñëwee ba léegi signature contrat bi ñu fi indi jam production la mu dox ci diggante Leket Baara a France waaye gis nga ba tey ñu ngi leen di indi làmb yi nga xamante ni mu ngi xew ci dëkk bi làmb yi tey la ki nga xamante ni mooy Double Tyson doone champion. lamb yi tey ci la France doone champion lamb yi ci la Leket Baara doone champion lamb yi ci la Xoyantaan doone sampion ba tey ñu ngi ci terreau terre ak Tony Junior ba tey ñu ngi jàppante dara xewagul ndaysaan dara xewagul Tony Junior ak terreau terre gis nga moo tax lamba ngi noonu li ñu am nañ ko fonk te xam lan la suñu espoir national la bu ñu demee bay génn ci réew dellu ci réew ngir làmb nga xam ne làmb am na ñu soxol am na ñu ko bëgg mbokk yi ey Sénégal ministre des sports gestu leen làmb gouvernement Sénégal jàppale leen làmb ndax fi mu toll ni xale yi sonn nañ ba tey ñu ngi ci teeroo teer ak Tony Junior mbokk yi teeroo teer Tony Junior ñu ngi jàppante ba tey toni Junior boo xoolee moo ëpp wet moo gën a gudd waaye teeroo teer dafa mel ni mbërëm taan la <laughs> cey làmb teeroo teer ndeysaan gis nga teer na may na may rasoo Tony moo leen woon ginnaaw gis nga ñëwaat nañ teeroo teer ak toni Junior mbokk yi saan làmb ji làmb ju neex la mbooloo mi bëri sama xel dem na ci gaal gi sama xel dem na Adrien Senghor ay waay dugg si Cheikh Tidiane ñaa ndaysaan jël na ko mais gis nga ba tey teeroo teer ak Tony Junior jël na ko teeroo teer sëqatal na ko Tony arrière na génn na saako yi dellu siwaat na ci digg géew bi teeroo teer a ngi koy karkaral ma ngi koy karkaral hey làmb Tony Junior ak teeroo teer ndaysaan kenn du Emine François Gomis du giseem ci làmb Serigne Ndiaye deux bu fas du giseem ci làmb taxabal na ko mu bañ tooñi ay terre terre terre terre ba léegi mu ngi def ay action terre terre lu mu nar tooñi jàpp na ko xalab na ko mu bañ tooñi junior xalab na ko terre terre tooñi nga koy <laughs> làmb terre ndeysaan làmba ngoog làmb tuxu na ma nga Gàmbi ndeysaan ñaari xale yaa ngi noonu jàppante ba tey dox ci diggante Terro teer ak Tony Junior mbokk yi bu leen jaawale Tony Junior moo leen woon ginnaaw ngemboo ngemb Lagos bi takk sengoor bu weex bi ci ndigg li ndeysaan gis nga Terro teer moom ngeen jàkkaar lool noonu teeroo teer Tony Junior ndeysaan ñaari xale yi ñu ngi jàppante ba tey làmb Gàmbi da amul léewtoo da ngay ñëw rek daw jàppante boo jàppee ba mu dëgër ngeen bëre teeroo teer ak toni Junior mbokk yi ba tey ñu ngi ci ba tey ñu ngi ci teeroo teer ak Tony Junior ndeysaan terre au ak Tony Junior arbit bi sifflé na temps bi jeex na terre au terre moom moo xaw a gàtt mbokk bu leen jaawale léegi Pape Thiam doomu géejawaay bi moo jël final bi léegi ci kaw Petit Baye Fall saan arbitre bi sifflé waat na terre au ak Tony Junior ñu ngi leewaatoo ñoom ñaar Tony nga jàkkaar lool teeroo teer moo leen won ginnaaw ñaari xale yaa ngi jàppante bi yoon moom xanaa dina gaaw bi yoon moom xanaa dinañ laale ndaysaan jàppante ne ñoom ñaar teeroo teer ak Tony Junior ndaysaan ñu ngi noonu ñoom ñaari xale yi ba tey ñu ngi jàppante waaye dafa mel ni ki nga xamante ni mooy Tony Junior nangul jël benn initiative terre terre mu ngi avancé mu ngi koy karkaral ma ngi koy jàpp waaye nañ leen xool tuuti xool fu wànnante di mu ki gëtëm ñaari xale yaa ngi noonu terre terre ak Tony Junior ndeysaan ñoom ñaari xale yaa ngi noonu jàppante <laughs> jaaraama làmb eey ndeysaan làmba ngi noonu ñoom ñaara ngi jàppante ba tey Terro Ter ak Tony Junior ña nga jàppante ndeysaan sëñ Bas <laughs> sëñ Bas déggal ipongaari bu Gàmbi la muy wax ci micro central bi ay waay làmb waay dégg ba ngay wax ndeysaan teeroo teer ak Tony Junior mbokk yi ba tey ñu ngi ci combat bi pap bu doon sama ipo ngaari la ba mu ne ay caay caay caay caay caa <laughs> ay waay làmb waaye joxo bàyyi mu ko ipo mu ko ay caa Tony Junior ay caa tor bëgg na koo forcé jàpp na ñaari loxo ci ngeem dóor na ko tànk wëlbatiku na ñoom ñaar ndaysaan xoyantaan a ngi noonu le grand champion ma nga noonu di njàpp ndaysaan teeroo teer ndaysaan teeroo teer ndaysaan ndaysaan teeroo jàpp na jàpp na teeroo teer jàpp na ko sëq na ko waaye du mën a sotti parce que Tony Junior da koo sut te nit ki bu la suutee pour nga daanee ko ci kaw du yomb lay gën a yomb ñoom ñaar mooy ñu jàppante waaye Tony jëlul benn initiative teeroo teer ma ngay def lu mu mën te bëre ñaare ko séq ñaari xale yi jàppante leen bëre ndeysaan Tony Junior ak teeroo teer Tony Junior teeroo teer ñoo nga noonu ñoom ñaar ñaari xale yaa ngi noonu jàppante jàpp na jàpp na teeroo teer jàpp na ko jàpp na lu mu nar teeroo teer ma ngay daw ak moom ma ngay daw ak moom mbot na bañ na lu mu nar takk na ko Tony dalay mbot Tony dalay mbot moytul teeroo teer bul forcer combat bi njool la ndaama moyul moytul lama la tegal na ko siège da koy daan daan na ko daan na ko Tony bëre nga teeroo teer bëre waaye Tony daan na la. bu ñu ñëwee Gambie fekk fi ki nga xamante ne mooy roi des arènes bi di xoyantaan kenn du ko laaj ndax euh, jafe naa gis waaye gis nga rek euh, wasaare làmb moom fépp fu ñu dem lu yëpp lu yàlla suñu borom dogal dinañ ko def xoy maa lay nuyu bu baax di la si. Euh, alhamdulilah rabbi alamina alhamdulilah rabbi alamina gannaaw bu ñu sant yàlla julli ci yonent bi di gërëm sunu ñaari waajur di gërëm waa ak làmb yëpp di ñaanal sama sëriñ Cheikh Mamadou Lamine Jim Ndiaye yal na yàlla xare ko àjjana ak mboolem jullit maa ngi lay fay bu baax a baax a baax. noo gisee làmb Gambie actuellement dafa mel ni làmb dafa jóge Sénégal tuxu seen Gambie te bu njëkk làmb daa jóge woon Gambie dem Sénégal. waaw sant rek sant rek ndax euh, euh, àdduna moom noonu rek lay demee euh, dañuy wax ko waaye wal sa moome jamono biñ toll nii ñun ñoo waaye ñu wal suñ moomee li tax nag làmb di taxaw ci fenn yi di dem ci fenn yi yal na ko fi yàlla jëlee bu ko kenn déggati muy feebar boobu nga xam ne mu ngi fi wàcc ci réew mi yëpp adduna bi yëpp sonal nit ñi huit lakkal ñu huit ñun mbëri sax la ñëwal boobu pour mu leer parce que ñun amoon nañu ay contrat yàgg amoon nañu ay combat yu taxaw yàgg waaye ba léegi mbër mbëri mag yi man mënuñu bëree ma système bi bu ubbeeg léegi mbëri ndaw yi rek ngay dégg ñuy bëree nii waaye mbëri mag yi sax mënaguñu bëree ndax promoteurs yi óolu décorer sa combat mag yi. mu doon loo xamante ni fi mu toll nii ñu bëree bëri euh, wax nañ ni xoyantaan jël na ñaari avance ñaari avance yooyu mun nga ñu ko leeral. waaw lu wér la. lu wér la te bëggoon naa sax defoon finition bu yàgg waaye feebar bi rek la corona bi moo ñu sonnal euh, dëkk dëkk naa ñaari avance jël naa avance boobu gàtt bii jamaïcain mi jël naa avance jël avance promoteur bii jibee promotion bëgg régler yëpp nag bu dajeek dogal suñu borom. nga war a bëreeg Baye Mandione ñëw senegal bi mu ñëwee Gambie wee problème wee la amoon mu ñëw Sénégal mbaa yow doo fa problème wee yow non li ma wax mooy man suma may ñëw senegal damay indaale ciseau indi coupe ongle indi lancette lépp laa indi su may ñëwee damay tàllal luñ bëgg dagg parce que man yàlla amoon nattu ba man du ma yor sax we ndax évidemment yi bëree mbër buy mbër daggal say du mbër buy bëree mbër buy bëree am we mënul nekk. mbër muy bëre wóoroo am we manu nekk ba ñax na daga say man du ma du ma doo ma benn we ini time nag heure boo ma fëggee doo ma gisee we ndax dama nekk sama liggéey la te we na la leer leer yàlla ne même bu ma entraîné sama man naa ci gaañu wala ma gaañ loolu moo tax du ko foyee man pare naa pour ñëw Sénégal daan Baye Mandione ci ay minutes yu néew parce que du Baye Mandione moo ma tax a jóg pour may ñëw Sénégal di bëre si. kan moo la tax am na leneen lu may xool lu mooy loolu bu ñu paree ñu wax. Baye Mignone dafa mel ni nee na moom moom Sénégal. suñu paree ci Baye Mignone dinañ wax fi ñu jëm. man la jëm. ci kan man. wuli da ngaa bëgg a jël xoyantaan. fii laa ko bëgg Gabi waa. man dafa tàgg de. ko bëgg a rey wala mu rey la. non moom champion la nan reyante rek. yow koo mës a wóolu rek léegi dafa koy rey. kii waxoo dafa koy rey. non ki neexu rey nan reyante. ah. ki mooy roi des arènes nag. roi la nag vraiment. non roi des la. loolu war na sax Gambie kii Gambie dañ ko war sax kii maanaam Gambie dañ ko war a gën a jàppale parce que roi des arènes yombul quoi mais man nag su ma ñëwee lay moom laay bëree roi bi. mais xoy euh, actuellement làmb fi mu toll euh, gars yi ñu ngi naan xoyantaan war na di mën di bëree Sénégal di bëree Gambie. mais li ngay bëree Gambie dafa mel ni moo ëpp li ngay bëre Sénégal est jotul tey boo jugee ci Baye Mandione promoteur u Sénégal yi di la tëggal ngay bëre même boo amul combat Gambie ngay bëre ngay bëre si Sénégal. loolu dafa loolu dafa pare parce que boo seetee dal nañ ci bunt boobu ba pare ndax su demee jël Baye Mandione am combat fi jëli Baye Baye Mandione Sénégal kon xam nga ne départ Sénégal ndax taal bu ñu noon taal la ba taalee fii doo ko ak moom parce que bu ñu teewoon Baye Mandione daan ko fii fii la ñuy laajee mbër bi ñu war a bëre Sénégal waaye yàlla dogal si combat bi li mu dogal mu doon victoire boo xam ne bëggeewu ma ko defuma ko muy dara dama ci am naqar ndax combat bu ma am fu ma fu ma jëmee woon mu xañ ma ndax ma ñàkk combat bi du ndam feeteewu ma ko victoire bi biñ ma joxe victoire dama am naqar bi na ñuy supporté yuuxu mu ngi mel dama am dëj lan la ma yàlla baal ci baat bi li ma séentoon ci combat bi ak li ma bëggoon ci combat moom laa amut moo tax suñu ñun ñëwee ne xoyantaan ba mu ñoon wee moo yàq seen combat soo ma ko laajee ñaari yoon ñett rek ma énervé damay mer ndax dama am naqar li ma doon bëgg mooy bëre Baye Mandione wane sama bopp daan Baye Mandione su ma mën xam nga adduna yëpp ñoo doon bàyyi xel làmb jooj su ma daanoon Baye Mandione damay taxaw wax am na ñu ma xam Sénégal am na ñu ma xamul combat def na ci man lu bëri def naa ci combat bi lu bëri làmb Gambia def na ci man waaye def naa ci lu bëri bis boobu ñu ñàkk noonu dafa tardel affaire bi waaye ni kon xam yow fi mu toll nii dafa mel ni da ngay mais xam naa ni sa xel mu ngi ci sampion yi nga xamante ni ñu ngi Sénégal pour nga laaleeg ñoom mais est-ce jot na nga laale ñoom est-ce que toll nga foofu. waaw am nga nit moom nit mooy natt boppam yow mënoo ma natt man nga ñëw fii rek xëy na daan na daan na waaye nit mooy natt boppam xam mooy kan nit boo tëddee man mu xëyee di dox ba jant bi so su ma tëddee damay xool man li ma xëyee baax na wala baaxul lu ci am defoo ma defaraat ko walaay bët di set su ma tooñee nit bët setee ma dem baalu ko aax bët bu ma bët bu set su ma xëy di dox ba ngay ngoon di jot bu ma sangoo ba war a tëdd dinaa natt suma bopp xool li ma xëyee ndax baax na wala déet dundu doomu aadama laa lay wax de moo tax man pare woon naa pour bëree jeeg ñeneen ñu mooy bàyyi ma njoon mi ma doon bëree waaye nag yàlla mooy dogal te génn ci xel mi ba léegi dañuy ñëw. dakaar rek pare ak Baye Mandione continuer mission bi. Baye Mandione kan moo gën a yomb. non jàpp ma ne kenn yomb na ndax làmb la li ma jàpp daal mooy jël naa seen avance damaa ñaan yàlla yàlla may mu ndam ndax mbër bu yomb bu ne dama gis na da ngay bàyyi bëree lu yomb day bàyyi bëree loolu laa jàpp yomb amul fenn parce que nit duñ la fay fay kii ngeen war a jàkkaarle dóorante ay kurfe ñu ne kii moo gën a yomb tànn ku gën a yomb làmb amul yomb te olof mu ne làmb amul maas dabante la. fi mu toll nii ñoom ñaar kan nga ci gën a njëkk a bëgg a laaleel Baye Mandione wala Double Tyson. Double Tyson moom la ñuy njëkk a bëreet fii. da bu soobe yàlla. lay jaajëfal bu baax a baax a baax. jaajëfal di la jaar di la ñaaral jàmm di la wax ne wisaare làmb yàlla làmb wisaaroo te ngeen gis seen bopp yéen ñu koy wisaare ñu dégg leen ci yeneen yu gën yi yeneen yu gën a kowe ci barke alxuraan karim yàlla mën na ko yàlla na def bëgg naa la baax jërëjëf. arbitre dox ci diggante boos ak guy gi boos ak guy gi boo xoolee boos moo gën a xees boos daal boos la <laughs> boos moom boo ko xoolee moo gën a xees boos moom boos la guy gi boo ko gisee moo mooy njool mi rek am na taxawaay de waaye loo mën a xew mooy mbëri ci géew bi yeguñu sax seddaay bi cey làmb ay waay namm naa làmb waay ay waay Corona yàlla nu yàlla àtteeg yow Corona génnal ci àdduna bi Corona sonal nga ñu fatt nga ñu tere nga ñoo lekk tere nga ñoo naan ay yàlla yàlla nañu ko yàlla saafaraal ba ñu delluwaat ci activité yi bari na xale yoo xamante ni sonn nañ. ak roof déggal guy gi ak guy gi ak boos boos a nga noonu <laughs> bi nag mooy combat roof ko tuddee mooy maanaam jàppal jàpp comme wasaare moom ñooy dem fu ñu ngi gàmbi combat bi leen nar a diktal mooy diggante guy gi ak boos guy gi moo la woon ginnaaw boos nga jàkkaarloo arbitre bi ngi wax ak ñoom mais daan jàppal gis nga ku ne day ba pare jàpp ba pare ku day jàpp ba pare lu doog a bëre <laughs> waaye làmb waay déedéet fi baaxul da ngay jàpp ba sa morom pare ngeen daal di bëre ndeysaan bu doon papa buur gi wala daa jàpp na ko jàpp naa <laughs> ndeysaan ñoom ñaar guy gi ak boos guy gi ndengeñ na boos guy gi moo la woon ginnaaw mbokk yi lii mooy combat spécial bi ndeysaan komba bi mooy combat spécial bi dox ci diggante guy gi ak roof ndaysaan boosa ngi noonu boosa ngi noonu ndeysaan oh, guy gi ak boos combat jàppante roofoo boo bëggee jël bi leer faw ngeen roofoo moo tax ñaari mbër yi roofoo nañ ñoom ñaar guy gi ak boos ñu ngi fii ci stade Gambie bi. waykat ba waykat ñaari mbër yi roofoo ba tëddee njaaxaanaay. <laughs> déggal sëñ Bas nga waykat ba nee na. ñaari mbër roofoo ba tëddee njaaxaanaay. njaaxaanaay moo tax nga taamu ci njaaxaanaay. ah damaa xam ne bu ñu roofoo normalement dañoo war a daanante. la tëddee njaaxaanaay la <laughs> oh, waaw. ko euh, loolu moom mooy mooy njaax. ndeysaan moo tax suñu papa Youssou Ndour na làmb ja fi amoon daaw verdict bépp la ñuy xaar ba tey ñii naan Mbaye Guèye Robert la ñii naan Mbaye Guèye Robert Mbaye Guèye la waaye en tout cas daal noppam ak moroom sëñ Basiru noo dundee Gàmbi sama waaj neex rek de neex kese. neex nga fanaan ci hôtel. non même pas loolu sax parce que. loolu ma loolu loolu dañ koy def fa ñu dëkk baa Djili ñu ngi. ko cere. déedéet cere gëj naa ko lekk man xam nga lan moo ma kontaan loo. maanaam dugg gi may dugg ci géew gis ay mbër roofoo di bëre. wala gis ñu dara yi làmb kom dem bi ma moo ngoom tëggee. oh Djili dama dama sama xol dafa sedd. ngay waaj a sama xol dafa sedd. jàppante ñoom ñaar. guy gi. Eh, bëggoon naa caxabal. waaye boos mi lu muy nar boos wicc na ko de <laughs> ay sëñ Basiiru làmba ngi noonu waaw mais mënoo reporter ci Gambien ni Gambien di reporter loolu nag waroon naa ko mën ndax Gambien yi dañuy naan mbokk afta mu ngi ko jàppa mbokka mu ngi ko mu nga rof loxo ba mu nga kànde ngeeñ lifin na ko lifin na ay dóor na ko ca dóor na ko ca cek point dama la ilaha illallah la bëgg na ca jóg son la gambe neex parce ñun bu ñu doon am doomu bàjjan Gambie lay doon bu amee doomu bàjjan Gambie lay doon parce que suñuy doomu bàjjan lañ ñun ñooy seen doomu nijaay ay kal la ñun ñaar caxabal na boos Boss caxabal na mu bañ ma nga jàppante ba tey guy gi ak Boss ñoom ñaar jàppante nañ ba tey ñoom ñaari xale yi ndeysaan làmba ngi noonu jaaraama jamaïcain xale la boo xamante ni mbokk yi làmb Gàmbi may nañ ko gët waaye famille làmb Gàmbi bëgg nañ ko li des mooy ñu jàppale ko accompagner ko ba fi mu bëgg a yóbbu làmb mu yóbbu ko fa fii mu toll ku ne toll na ko ci làmb fii mu tollu Aziz Ndiaye tolloon nafa fa fii mu toll Aline Petit Mbaye tolloon na fa fii mu toll suñu papa Gaston Mbengue tolloon na fa fii Jamaïcain toll bari na ci promoteur boo xamante ni ku nekk fii mu tolloon nga toll waaye danga amoon ñu la jàppale sponsor yi ñëw wuy si la say moromu naataangoo ñëw jàppale la. say moromu promoteur ñëw jàppale la ñoo nga noonu arbitre bi àtte na naa leen amul benn problème Roffo jàppante leen ba pare ma doog a sifflé loolu de fii la am. Ah? émission kan la. émission ban. Roffo. Roffo. Roffo de émission la boo xamante ni mu nga doon daw ca TFM sama papa Ngagne Ndiaye ñu ko daan def jàppante ñoom ñaar diggante boos ak guy gi. ñoom ñaar jàppante nañ ndeysaan bas parents yaa ngi noonu wër làmb ji moo xamoo luy parent déedéet bas parent mooy policier ah. policier moom la Gambien yi tuddee parent bu ñu yegsee ñu ne parent yi wàcc nañ moo tax làmb daa lay làmb billaay mais làmb ngi déggal waaw ngom bu gàm bi dégg nga la muy bàkk. billaay. gigi ca gigi ca gigi ca gigi dóor rek xam nga xam nga façon bàkk bi bàyyi ji lan la may fàttali. ay jamono bu ñu waree béy armeel yi. Euh, xiin gi yéene. nii la doon tëggee. xam naa ku dëkk ku dëkk Jurbel euh, maanaam njaareem. danga xam bu baax ndax boobu foofu cosaan cosaanu gi yéene xiin ba léegi dafa des. ndeysaan kii de moo dégg naa ci làmb làmbu Gàmbi bokk na ci ñi fi teg tànk moom xale bi <laughs> waaye liñ ko seedal mooy boo ëpp ngemb ci làmbu Gàmbi lu mu jàpp dangay ngay jóg. Balla Gaye dama baal Modou Lo dama baal Gris Bordeaux dama baal. waaye dégg naa xale bi bu leen jàppee sax ñu jóg ndax gàllaaj loolu moom loolu la waa dëkk bi ñëpp seedeel léegi nee nañ kum ci jàpp ak benn loxo da ngay jóg mu ngi noonu gis ngeen ko ak kasket bi gis ngeen ko kii moom vraiment ñeme naa ko ci bëre waaye xam naa ni mystique bi gisoo ñëpp a koy photo ñëpp koy filmer macha allah. kii de xaw ma lan la fas yéene def kan lay bëreel. ndeysaan gis ngeen ko de mbër maa ngi noonu waaye ngem bu Sénégal de la ngem moom vert jaune bi loolu moom xam naa ni sëñ Bas bàyyiwoo ci xel cey làmb cey làmb ñoo noonu génne ci kinne kaayam ma ngay sottee ko butéel sëñ Bas lii li ma ci gën a neex mooy jël si Modou Ama Balde Gris Bordeaux Balla Gaye ñu génnee seen ci mikaay jëm ci digg géew ba loolu loo yoroon ci million wala ci milliard jar naa dagg billet bañ ko ay waay ndeysaan Bombardier mu jóge ci ci di dem ci digg géew Modou mu génne ci ci di dem ci digg géew Ama Balde mu jóge ci ci jëm ci digg géew non làmb beneen affaire la. wala làmb li ci dàq du bëre. ndeysaan am na ku yor benn siwo. siwo bi lu mu def. siwo bi lan la def. da koy sotti wala da koy teg teg na ko. demal jëli beneen. ci làmb la bokk. gis nga mbër maa nga noonu. tegal nañ ko xànc. man da jaaxal ka muy bëreel. daa desee euh, faale wu sax combat bi. waaye kii de daa mel ni jikkoy mbër la yor daa mel ni jëfit mbër la yor ngi koy yedd ma ngay ñëw ma ngay njaab di ñëw nee na def leen ndànk ma ngay wax ak añ mu àndal bu leen ma teg pression def leen ndànk ndeysaan ña nga noonu di indi drapeau bi mbër maa nga noonu di dem ndeysaan saan ngay njaab di ñëw ndeysaan mu ngay dox Bécaye ngi noonu di dugg ci làmb ji waaye bas xoolal ma Bécaye ka muy bëreel siminu tubéy bu gudd bi des ak kibéy bu gàtt <laughs> oh làmb ndeysaan Bécaye gis nga drapeau Gambie la ngembo ndeysaan loolu day wane ni moom doomu Sénégal bi la wala doomu Gambien la kee nekk kee moom ngembu Sénégal la ngemboo looloo ma jaaxal kii ngemboo ngembu Sénégal kii ngemboo ngembu Gambie ñu war a bëre grand combat bi li mu doon gis nga vert baa ngi noonu vert zone rouge étoile ba laa séenu fenn <laughs> ngay gisaat leneen lu bees ku nekk ak sa culture ak sa aada gis nga ñaari grand combat bi ñu ngi noonu ndeysaan ñu ngi noonu ñoom ñaari yaa ngi noonu ndeysaan Bécaye gaynde ak Bécaye Bécaye ngi noonu yëkkati ñaari loxo yi gaynde ak Bécaye gaynde gi ne gaynde de nduru na gaynde moom ndeysaan muy naan ka ngemb li bu dëgëru kee reena ndeysaan jàpp na ngembale neen ko ngembale bu dëgërul da nga koy bàyyi. Hmm? ah sëñ Basiru nee nga waa ji day li koy réeré baatu daa am daa yaakaar ni day daan ndeysaan Bécaye gaynde Bécaye moom fi mu toll daa mel ni seddaay bi jàpp na ko gaynde xolam ma ngay ree ndeysaan présenté nañ leen ay déglu. looy wax. non samay waa samay nit yi démb yàgg nañ. doon dugal lamb mu ngi sama gannaaw day tooñ rek day tooñ. Ah. day tooñ tooñër la. jaway kee gi loolu. ndeysaan gis ngeen. am na lu xew de. am na lu xew de. waaw am na lu xewati. lan moo xewati. diggante gaynde ak ñolo ñolo. ay mbëri ay mbëri roof lañ. Hmm. combat bu neex a ngi nii. mais gaynde daa jékki-jékki taxaw ci sabar bi mu daanu ñëpp yuuxool waaw mooy wane ne ñeme naa ki samp sabar gi daf koy wan ne ñeme naa la su ko doxee ma bëreeg yow lii la ñuy laajee mbër ci làmbi Saalum mbër mbër nii lañuy laajante laajantee da ngay ñëw sampal ko ndënd mi bu la ñemee wala mu bëgg a bëreeg yow daf koy daane su ko defee bu fekkee mbër yu am peeseen lañ ñu jàppante ba nit ñëpp kontaan ñu baxante du am xeex loo noo bëgg baay. jërëjëf bëgg ki nga bëgg ñëpp ko bëgg. baay ñëpp bëgg wallaay ndeysaan. da ngay liiru liiru ndeysaan ay. liiru ah eh, lañ dégg lañ dégg lañ dégg dégg dégg dégg <laughs> dégg <laughs> wuli wuli wuli wuli wuli wuli wuli wuli wuli kaay kaay wuli kaay wuli kaay wuli kaay wuli kaay wuli wuli wuli kaay wuli kaay wuli Gel Bekir'e waaw ndeysaan dalal nañ ko ndeysaan may nañ ko xaalis ndeysaan Wouly la grand champion ndeysaan waaw waaw ayca ñaari mbër yee war a laale cey làmb ña nga noonu ndeysaan waa ji na sax Philippe dafa gaawal combat bi du yàgg combat bi de bu gaawee dana ma yéem ndeysaan lan moo tax di combat bi du du du yàgg. ndax gaynde ko xam gaynde xam na ne gaynde combat am di dee yàgg ndax mosu bëri combat un minute ay ay seconde lay bëri combat moom mooy ñaan nii. waaw mooy ñaan nii te te moom dafa nekk moom loo xam ne entraînement soo gisee di entraînement de te nag combat moom di dee yàgg bégaay nag moo tamit ndaanaan la ndax mën naa ne combat mujj dafa jóge si ndam te tamit combat mujj mën naa ne ay seconde la am ndam moo tax daal combat bi daal ku yeex daal doo ku xef doo gis jëli bi. jërëjëf noo tudd. Ousmane. usmaan nan Ousmane Ndaw. jërëjëf Ousmane Ndaw Ndaw saan dee na aram faxa borom du kumaan ndeysaan mu nga noonu dox ci diggante bekaay ak gaynde arbitre yi ngi xool seen loxo ndeysaan combat bi bu leen jaawale mbokk yi combat roof la combat roof nag boo ko déggee mooy jàppal ma jàpp dañuy jàpp ba noppi ku ne na pare naa arbitre doo ko siffler diggante gaynde ak ki nga xamante ni mooy bekaay cey lamb gambi ndeysaan lamb mën lii amateur yaa ngi seetaan lamb yaa ngi tàkk mbër yaa si géew bi sunaar si nii reporté mën naa ne lii lamb kese moo ko man lamb ngay dem seetaan kenn du lu kon doo wax ne lamb ji ñu noo ko moom bu ki kenn yàqal ñoo ko war a defal sëñ bi du ñaan tamit yàlla génne corona bi ndax corona bi lu mu yàq bëri na tax na sama laamu Sénégal amatut ba tànn sa Sénégal ñëw fii kon di wax ne nag doxalal. ay ca kon noonu la deme mbokk yi <laughs> fu ma dem ab ba xarit am naa ba beneen xarit reporteru Gambie la ndeysaan dégg ngeen li mu wax dox ci diggante gaynde ak bekaay gaynde nag nee nañ gaynde la ndax du entraîné mais am na ngemb bu arbitre sëq bu la jàppee nga ñibbi nee nañ musul bëre combat bu def une minute ay seconde lay bëre takk taxañ dem ñibbi nee nañ ci gàllaaj ba la ko teg ñii nee nañ dafa am ngemb daa am ginnaaw moo tax muy laale ki nga xamante ni mooy bekaay bekaay nag boo gisee yoo xam ni vraiment mu ngi entraîné. genn nag dafa am oyofal oyofal la am oyofal bi gisee mu ngi takk. moo tax ma ne combat bi minute combat bi du am combat bi minute su ko gaynde ñàkk na combat man maa la wax li seetaanal. ndeysaan jërëjëf rombee ñàkk na combat na une minute bu ko bu gaynde ñàkk combat gis nga aj na loxo danaan ko jàppal. ñu xool day dugal ngemb <laughs> ay làmb kii day aj loxo gaynde jàpp ba doyal gaynde ak bekaay ndeysaan gis nga ndeysaan déggoo ñii nee nañ roof bi baaxul déedéet déedéet ngembal kenn takk ngembal baaxul dëgg ndax dafa xam gaynde xam na ne su dëgëree du ko arrangé moo tax mu yolomal ko gisoo gisoo moo tax genn ma ko takk bu baax gisoo ngembal daxaa yolomal bu ko genn jàpp baax moo tax yolomal ko xam na gaynde moo daxaa xam ndax gaynde gaynde képp képp ki bëri moom rek sa ngeen mu dox takk mu dëgg su dëgg rek am nga problème loolu moo tax waa ji <laughs> da ngaa xam Bécaye noonu Bécaye ba muus. gisoo ndeysaan làmb gi loolu stratégie la Bécaye ak gaynde ndeysaan gis nga nee na ko jàppal fii waaye ñoom presque kilote la ñuy sol rek morso ngemb li dañ koy teg ci kawam. arbitre bee ngi wax moom. day jàpp gaynde ak bekaay jàpp de moom moo koy organisé ko sa saagi ak géew bi moo koy organisé moom mu si CNG daal si gàttal maanaam ci euh, bu Gambie moom moo ci bokk na ci waaw bokk na ci ci njiit yi la bokk waaw si njiit la bokk si wàllu organisation bi xam nga CNG Gambie kenn ko liggéey am ñoo xam ne ñoo di yër di bind lu def gars dem report ko yóbbu ko. mooy Thiam. waaw Thiam mooy président bi. Thiebo gisoo Thiebo ñoom na yor wàllu wàllu bind bi mbër boo xam ne def nga loo wax te def rat ñoom noo lay yóbbu su ko defee gars yi sa xaalis. noonu la fa demee waaw. Ah, boo demee CNG bu Sénégal Thiam fa nekk mooy bind ak kan sëñ Basirou. amoo fa kenn <laughs> ak ñoo mën a bind foofu minute bu ne dix mille la barki yéen tibi ah. trente minutes trois cent mille. laay laay la laa jàppante ñoom ñaar jàppante ne ñoom ñaar jàppante ne ñoom ñaar gis nga ñoom ñaar ku nekk jàpp na gaynde ak bekaay ak gaynde ñoom ñaar danaa may ma mu dugal ah bekaay bopp bi war a génne bopp bi war a génne na nga ko génn moom gisoo moo tax génn mi ngi kumpale mën pour bégaa génn bopp bi ndax lii roof la te dëgg ah. roof am nga fa nekk benn gisoo bégaa mi ngi jël bopp bi dugg ko si na mu na mu ngaange andu bi waaw gisoo gisoo mi ngi nengeeñ a ndengeeñ ah mais da ngay bàyyi mu jàpp épaule ngeen war a tegante bi sifflé na wala déet lii lu doon ne bëri yoon bi. combat kenn du ko soox soox Bécaye dafa bëgg ndax askan bi Bécaye jàpput loolu moo tax at bi arrêté combat bi da nga bëgg wax gisoo waaw. waaw jàpp nga gerte gi léegi jàpp amul suble da nga jàpp amul ba mbilu suble ngeen doon bëre waaw. dégg nga man de gaynde confiance am mu am jaaxal na ma. <laughs> laa ilaaha illallaah Bécaye ak gaynde combat roof la. dagaay pare pour bëre dagaay pare pour bëre ndax soo bàyyi xel genn woon na ko jàpp ba mu dëgër xam nga roof da ngay jàpp ba kii jàpp at bi soufflé soo jàppee te at bi soufflé wut soo jëlee soo daan jël amu fa dañuy baax ba at bi soufflé at bi wax na ko mbil bi moo leen taxale moo leen di boole yaa ngi gis gars yaa ngi kaas dëgg la na begaay na begaay jàpp begaay pare pour bëre dafa bëgg yàq làmb yi gaynde ak bekaay yow bëgg lii tamit du làmb nag boo jàppee da ngay may sa mu jàpp lii mooy nañ ko gis mais ñoom dañoo war a tegante épaule. Ah, cey làmb Bécaye ñëpp a ngi naan bekaay Bécaye Bécaye Bécaye boo jàppee mayal sa morom mu jàpp. ngeen bëre. doo avertissement Bécaye waa waa waa yóbbu nañu nee na dem leen nee na dem leen nee mu yàqu dem demleen dem leen bas jógal dem leen nee na mu yàqu lamb ja toj na. ñi booy. la ah. nit ki boo ko ñemewut bu ko laaj. waaye nga laaj nga ñeme ko ñëw ba si géew bi nangu loo bëree li yëf yëf ba nga ñu nar nañ ko moo ñemewul. naka la beneen mbër bi nu mu tudd. Bégaay kooku kii dafa yab nit ñi buroo. ñemewul la yëppal la yëppal la yëppal la yëppal da ngay yëppal gaynde du mbër gaynde du mbër ki ñemew ñemew li ki sooba ñemew doo bëre moom li ki sooba ñemew doo bëre moom yi ma yàq la gi siyaar naa la bu baax a delloo siyaar yow yaay kan jili wasaare làmb wasaare na na tasaaroo ndoog ah, noo noo gisee làmb Gambie actuellement loolu làmb Gambie moom avancement lañ ci gis euh, Covid bi moo ko wàññi woon rek waaye léegi xam naa ne léegi tey hmm, ngeen dégg fi yu garaaw combat yu garaaw yoo xam ne ñu ngi taxawoon mais Covid bi la woon euh, suma rakkat suma xarit Jébel Touré mu ngi taxawal xoyantaan ak euh, double Tyson bu Kaolack te boobu làmba du ko gën a rëy ci Sénégal bi bi daanaka euh, su ñuy wax ci aada cosaan rek foog naa ne boobu làmba ju gën a rëy fii la waaw te suma jarbaat tamit jam mu ngi taxawal leket ak ci naka France foog naa ne loolu tamit beneen combat bu la. yeneen yi nga xam ne tamit ñeneen ñaa ngi leen taxawal combat yu rëy lañ waaye mbappat bi lañ gën ñun si boobu lañ gën a concentré waaw si jamono ji comme mooy bi ngeen gis nii rek waaw. mooy combat roof bi. waaw combat bi. Euh, dañu gis ñaari yoon nga dugg ci digg géew bi doon régler situation bi nga xamante ne am na ci li nga doon wax mbëri lan la. non li ma leen doon wax mooy ñoom ñoo fi indi nit ñi te dañ war a respecté loolu. mais su fekkee ne xam nga kenn ku nekk yaa ngi daw responsabilité wala kenn ki mu ngi daw responsabilité nangul am ngemba boo xam ne foofu nga war a téye parce que combat roof la danga war a téye ma téye soo yow su fekkee da nga yolomal def fa benn sagar boo xam ne kooku mënu fa téye ragal la soo loolu laa doon jéem a régler ba pare ñu nekkoon ci géew bi tamit di gën a bari pour ñu delloo si génne ma génne leen ci biir waaw. ñu lay jaajëfal bu baax a ñu ngi lay sant man maay buur Wrestling Promotion. ñun dañ am benn mbootaay boo xam ne ñun kees promoteur yoo xam ni yàgg nañu tëgg làmb ñoo ànd di jàppalante moom jigéen bi tëgg tey Adam mooy suñ vice président soo pour mu leer rek xam ne rek loolu la ñoo doxal fii waa jërëjëf ñu ngi tëgg nag ba ci kaw gi Farafeñe Jaareñ Basse yëpp ñu va tëgg làmb ci jamono ji parce que dañ gis ne doxul fii foofu la gën a dox waaw ngeen wasaare loolu tamit nan ngeen di kañ ngeen di ñëw ci capital bi fi nga xamante ne mooy arène nationale wala yu mel noonu organiser fa làmb boo xamante ni tey dañuy xam ne promoteur u Gambie ñoo ñëw Sénégal organiser làmb foofu. ah pour Sénégal si boppam. non man euh, foog naa ni Sénégal euh, maa ko fa gënoon a jege pour def ko fa mais su ma diggante Yaaya Jammeh ak euh, Pape mbay maa ngi ko waroon a tegee Kaolack wala dakaar mais bi problème ñëwee. Covid bi duga soo si laa cancel boobu mais loolu waroon na nekk fa parce que man ak eh, Ndeye Ndiaye Taysin waroon nañu tëgg Kaolack wala dakaar man ak eh, ñoom eh, Leewtoo man ma collaboration ak ñoom ci diggante Ama Sène ak Bombardier waa Pape Thialis ak Abdourahmane waaw soo mu nekkoon loo xam ne alhamdulilah. jaajëf jaajëf jërëjëf yaaw jaal nuyu leen ma ko suma xarit la. waaw trois combats fii ci Gambie. waaw jërëjëf. bu baax di la ñu ngi laa fay bu baax. tur bi. Jabel Touré. Jabel Touré promoteur. waaw. nga organiser combat bu mag mu dox ci diggante Xoyantaan ak Double Tyson. combat boobu bi nga koy taxawal. Euh, métti woon na wala yomb na. waaw non métti woon na. waaw métti woon na because euh, euh, lu ma la mën a wax daal xëccoo la waaye yàlla dimbalal ma man la yàlla jox ndam li wax dëgg yàlla. nan nga koy waajalee. non ñu ngi ko waajal bu baax fu mu nekk nii wax dëgg yàlla. because ku xam Xoyantaan di nekk roi des arènes in Gambia xam Double Tyson nekk roi des arènes in Kaolack ñaari combat du yomb déedéet du yomb wax dëgg yàlla ñu ngi ko waajal bu baax a baax a baax because ñu ngi war a def face to face bi on di next month moo nekk face to face soobee yàlla combat moom wax dëgg yàlla Gambia yëpp moom la ñu waaj wax dëgg yàlla ak Sénégal tim because man am naa fa ay nit Balla Gaye mooy suma mbër Lirou mooy suñ mag wax dëgg yàlla ñu ngi leen si invite ñoom ñëpp pour ñoom ñu ñëw wax dëgg yàlla. te dugul waa Kaolack la. Kaolack kenn du des. Dakar Kaolack yëpp moom soo sooree Dakar rek ne Kaolack ne Kaolack ne dakaar wax dëgg yàlla. Mhm. yan presse nga fas yéene liggéeyal ñoo xamante ni ñu ngi senegal noo presse bu ñëw rek bu ñëw rek mun naa liggéey ak yow bàyyi ma benn presse xam nga soo waxee loolu ne kii laay liggéeyal kii laay liggéeyal yow ñëpp su ñëwee da nga xam kan kan nga si mun a liggéeyal. Wassare Lamb pare na pour liggéey ak yow. su ñëwee pare na pour liggéey ak ñoom wasaare lay wax te lamb ji dama koy wasaare lamb ji lambi politique la NPP ñoom moom lamb ji teg ci bi ñu tuddee ko suma papa di président Alaaji Adama Baro waaw te moom lañ tuddee drapeau bi wax dëgg yàlla kon wasaare la waaw incha waaw mooy mooy mooy face to face bi treize bi ñëw nii mooy face to face bi diggante xoyantaan ak double Tyson incha allah dinañ ci liggéey liggéey bu am solo bu soobee yàlla ba gën a taaral bis bi bu soobee. benn problème wasaare jërëjëf. <laughs> soxna si. soxna si maa ngi lay nuyu. nga organise làmb nekk jigéen euh, depuis kañ yaa ngi organiser làmb. Euh, maa ngi laa fay bu baax di nuyu ban télé la sax. wasaare làmb. wasaare làmb maa ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen siyaare di leen di nuyu waay Sénégal yëpp nag. di nuyu waay Gàmbi yëpp man depuis 2005 bi ban tey maa ngi tëgg làmb yàgg naa tëgg làmb ah, boo calculé loolu mu ngi nekk ren fukki at ak juróom-ñaar maa ngi tëggam làmb làmb yi du dara ci man parce que làmb anytime dama dee tëgg làmba yoo xam ne daf dee aaga waaye làmb bi moom tey nu mu bindoo nii sax daf ma métti sax fi nekk nii dëgg dëgg métti na ma trop bu baax waaw dina jeex kaay. gaynde gaynde loo wax. ana. gaynde loo wax bër ngay bëre. man man man kay bu arbitre ñëwee ma damaa bëre bu arbitre ñëwee damaa waaw wax na dëgg bëree ku lan mooy problème bi moom lan la lan mooy problème bi saa nangu de bëree booy dégg nga du ko sa bëri roobu lañ wax nañ taxaw ci jàpp ñu bëri loolu la am pour wax bu taxaw jàpp bëri naes ñu bëri naes léegi ñu ko bañ a def bëri roof ngeen bëre gaynde gi noonu jox nañ ko drapeau xaaral ñëw père xaaral gaynde la ba bas bas jëlal drapeau bi. so thank you jërëjëf indil loxo bi jàmm ak xewal thank you so